dalli nag jàmm li ñuy dégg boobaak léegi ci réew mi moo di faat bakkan yu tawuta dakk libération yéene kaay ne ca benn dëkk ñaari gaar di Thiès waxambaane ba fa dugaloon tut tànk bi atam toll ci juróom-ñett ci bâtiment bëggoon koo rendi gannaaw ñaari ayu bés yuñ ko doon seet takk derrière teg nan ko loxo libération yéene kaay ne loolu ma nga xewe ca daaru salaam ga ca Thiès daaru ci bugga ca jaxaayi nee na ñaari waxambaane ñoo fa doon xeex kenn ka jam morom ja ba mu jaare fa ñàkk bakkanam li ko waral moo di ne jigéen gun fa doon xëccoo jot réew di Sénégal yéenekaay bi di Libération ne xale bi am juróom-ñetti at ca diwaanu Thiès te amoon benn waay bu ko dugaloon ci tabax ba kaar rendi dagg loxoom waaye xale bi mujj naa mucc waaye ki muccul mooy waa ji am ñaar fukki at ak benn doon ab siraskat ca Daaru Salaam la dëkkee xale bi nag ginnaaw ay fan ñu koy wër mujj nañ kaa jàpp moom a jàlloo di séeréer le ban koy jàpp nag dafa màndi na tat ba ànduloon ak sagom teg ci paaka ba mu doon rendee xale ba sax ma nga ca loxoom keneen kun jëm paaka dee ma nga ca daaru cubb ab xale bu góor bu tudd Badou Ndour toll ci fukki juróom-ñett Fallou Diagne di xaritam toll ci ñaar fukki at faat moom Fallou Diagne mujj nañ kaa la waral nag mu faat kookilee di Badou Ndour di xaritam am 18 ans. may leen ma maa nga ci doonu ko ca sàkk libération yéenekaay musiba ga fa xewoon bu baax léegi toll ci ñaari ayu bis doon ab tu tànk bu làq juróom-ñetti at ñu naroon a lépp aw fanam yéenekaay gi libération ne yëf yi nag ma ngay gënd laar ndax ka ñu ne moo ko doon fexeel tàbbi na ci mbaalu ko woy takk der yi waa jooje nag ñaar fukki at ak benn képp lu làqoon jàppe nañu ko ca Daaru Salaam ki mu bëggoon a faat nag moko ko daal di feeñal ci jamono ji nga xamantene fekke nañu kap ngànnaay bu kay may mu doon def ay ñaawteefam te du ci tit ba mu raf ci wa daaru ci buñ mom ña ngay jooy seen doom ab waxambaane bu laq fukki at ak ñett benen noppam moramam la ko te jigen moko waral ci lako dabax ngànnaay fa la badd dem Ter, ñi rawale mu téré ji bammel te ñu ne mom la loxom taqrib ak deret nak su ko ay gëti woomam di xaarandi ba koy fekki ci këru ko deug ci biir kasso bi il avait tenté d'égorger un enfant de 8 ans à Thiès le mystérieux assaillant a été arrêté. C'est Libération qui nous parle de cette nouvelle. Sireur, âgé de 21 ans, et domicilié à Darussalam. Il a été formellement reconnu par sa jeune victime lors d'une confrontation à Diallo qui était dans un état d'épriété très avancé lors de son interpellation hier avait toujours par devers lui le couteau. Toujours dans le journal, mes confrères mettent sous le feu des projecteurs une dispute autour d'une fille qui vit au drame. à encore un jeune tué par son ami, décédé lors de son évacuation. Badundour, 18 ans, a reçu un coup de couteau en pleine poitrine. Son meurtrier présumé, F. Diagne, qui a le même âge que lui, a été arrêté.